jël bi leer leer ba pare kuy daan daan match bi tas nga xam ji làmb ji bu jeexee day Pikine day am problème làmb ji moom waa Pikine leen dong mooy seen jàmm ama daan Pikine nekk si jàmm hmm? imagine ama daanu ñu ne Boy Niang waajal Modou <laughs> ma nuyu def minute def minute xam naa ni yow moom tu vas beaucoup insister sur l' sécuritaire man loolu moom leer na ma tu vas <laughs> dégg nga gars yi la ñu jot a wax te xam naa ni aspect sécuritaire moom c' est quelque chose qui te tient à cœur lan ngay wax tey ban jàngat nga am ci làmb tey bi ak ban comparaison ngay def ak làmb 5 novembre bi nga xamante ni moom la àdduna yëpp di xaar. bë bala maa dem daa am lu ma bëgg a wax temps yëpp maa ngi lay wër. waaw. sama mbër mi Balla Gaye waaw. Balla Gaye gi jëmmi yonent bi na na na Balla Gaye depuis janvier ma gis ko maa ngi naan ma gisoon Balla Gaye dama naan gis Balla Gaye mu ne ñàpp Balla Gaye Balla Gaye nañu dimbale ngir yàlla quoi def ni Modou Lo nekk si géej gi nekk si contact yi. Hmm. buñ ko daane sax baax. Hmm. ngir ngir hmm. ngir yàlla rek ngir yàlla. Balla Gaye dañ ko war gi bu ñu koy gisee muy taq suuf di contact mel ni Modou Lo bu ñu même boo koy daan xam ne jël moo ñëw kenn wax Balla pare na biir baag yooyu nañu dimbale ngir jëmmi yonent bi ngir loolu. lool dong la hmm. loon tëjee. Balla Gaye nañu dimbale ngeen. bu nekk salle musculation. non waxuma Balla Gaye warul salle musculation dafa war di contact moo duggee Modou Lo ngi yob ko muy contact physiquement Balla Gaye Modou Lo yaram xam ne physiquement pare na mbër mu pare amul physiquement nekk si géej gi ñëpp ku xool Modou Lo doone xool biiru Modou Lo bi da ngaa waa ji moom hmm. ñàbbaar la def Balla Gaye la war a def na bàyyi nekk salle di puus yi weñ ji kii non non da yéeg si contact boobu kong la war Balla Gaye war a def ngir jëm yonente bi nañu dimbale nag ndax nga booy yi ay franc yi dañoo am doole de physique bii mu yor booy franc jàpp dañ koy sànni fële barke yonente bi loolu laa boobu hmm. doole bu wóor kon booy ñi booy doole million boo doole tab kër lañ bëgg almadi këri almadi yi lañ bëgg caaxaan ko kapp ñu si naan hmm. traîné bu baax bu nag mu jël retraite gunge saa kees quoi war taxaw depuis ba janvier de mois buñ la gisee da ngaa war a dañ la waaye waaw baa nga jël kat daan bi booy ñaa daan ëpp na ko waaye si sëriñ lañ koy yóbbu naan ko da ngay defaru da ngay waat mu ñëw daanal sëriñ lañ koy yóbbu naan ko il faut nga defar sa yaram bi defar sa yaram bi ba at amaat combat fii du pare. Hmm. léegi naa léegi dinaa dinaa ñëwaat ci loolu léegi bul dem def unité. saa yi dafa am bu mu dugg quoi bàyyi ma may la ci 30 secondes nga développé sujet boobu balaa ñu ñëw ci Modou Lo Ama bi. loolu ban la noonu. mooy li mu wax léegi léegi ba njàngat nga ciy def man pour man Balla dafa laaxatu mais mu ngi liggéey. non mais. Balla moom xëy na xëy na dafa xëy na dafa xër di wax waxu rek mais Balla Gaye ñun gis nañ ko tey après. après il faut savoir que Balla Gaye dafa am fu mu jógee dafa am fu mu jaar te yaram boo koy defar dafay jël temps mais tey boo ko gisee nii man du ma fansa Balla mais boo ko gisee nii tey dangay xam ne mu ngi liggéey. Mhm. sincèrement balla mhm. bi ma gis nii ak balla bi ma gis weer yi passé balla booy ña ak balla bi tey du benn donc mhm. tamit il faut savoir que mu ngi si yoon nit na da nga koy jox temps nit kuy defaru moom da koy encouragé sax bu dee fansam nga da nga koy encouragé di ko ñaax ni mu def ni sax baax na mais buñ ko nee nekkoo ci quoi parce que boo ko nee nekkoo ci tamit nit ki di def effort pour ñëw nga koy naan nekkoo ci ba bu nekkee fan fansam nga encouragé woo ko quoi waaw te balla ku waxal yàlla rek xam ne bon du ma ne mooy làmb de mais mu ngi noonu daal dañ ko war a gën a ñaax mu dellu si bu jógee ci làmb bi rek du du arrangé kenn. waaw Modou Anta waxal ci sujet boobu rapidement bu ko defee ñu mun ko tëj Anta loo ci wax. waaw comme waa ji li mu wax rek euh, comme euh, yaa ngi gis Balla nga war koo encouragé Anta dindil écouteur u deux dirham yi dindil écouteur u deux dirham écouteur cent dirham nga am dindi écouteur deux dirham waaw mais kenn déggu la dindil écouteur deux dirham yi xaaral ma ñëw xaaral ma dindi waaw yow moo daan tey ñun ñoo gën a bëgg Balla Gaye téeméeri junni yoon Balla Gaye bu daanoo ñun dañuy toog deux semaines dootuñu mën a lekk bu ko passé un mois dootuñu mën a lekk Balla Gaye moo daan tey ñoo gaaw ñu tudd sujet boobu dellu ci Modou Lo Ama Baldé sama waa ji laay waxal sa waay yow man man bëgg naa la ndax li nga bëgg Balla Gaye mais li ngay def kenn du ko def bëgg naa la tax li bëgg naa la tax li nga bëgg Balla Gaye waaye li ngay def kenn du nga naan na liggéey yi da dañuy làqatu ci si si liñ moo tax am na ñoo am na loo xam ne waruñu Balla contact gud waay ah paa yooyu ngay lu la leer xam nga li may wax tey nga naan Balla contact lu la leer di Balla contact yow yaay nekk fi nga nekk Balla nekk fa mu nekk nga ni Balla contact doo si yi ngay wax xanaa nit ki kay boo koy boo ko boo nga wax lu positif si moom mais pas négatif si moom waaw baax na mu ànd léegi nañ tëj Balla Gaye bi baax na léegi eh, kii Gibson Fall hmm. euh, pour ma Gibson Fall leen rek laay tàggatoo yo kan mooy favori combat Modou Lo ak Ama Baldé kuy favori bi bës gi nga ñëpp man gi man Modou Lo laa faral hmm. man favori Balla Gaye mën mën bu Ama Baldé la bu daane Ama Baldé bu daane Modou fenn la man leen laa koy jàpp gàllaaj loo ko jàpp man bës damaa seetaan Modou Lo muy bëri mbapat Assane Diouf. yow yow mi bëggoo mi yow mi bëgg Balla Gaye ba pare di faral Modou Lo barki sa yow. dégg nga ku a bëgg Balla Gaye ba rek moo xool bës. waaw. gis nga gis nga au moins nag nga man Modou Lo bi ma soxla Modou Lo ma soxla Modou Lo bi nekk ci géew bi ñu na Modou Lo dafa yokk man xam nga lu may tiital Modou mu xeeb gàllaaj gi rek ba mu dee si gàllaaj daan ko jël bu yomb mu dem rek laa koy tiital. te Modou Lo hmm. bu dégg ay mbokkam ñu ngi dégg Modou du bëre ay bu daanoo am ñu dee te xam ne ne làmb gàllaaj làmb Sénégal gàllaaj la Modou Lo bu doonee làmb ji defatu ko gàllaaj na ko bàyyi ndax ay doomi jàmbur. bu Modou Lo daana daam ñu si dee ngir jëm yonent bi bu doonee moom gëmul affaire gàllaaj na bàyyi laamu ji dem nga Ama Baldé laa Ama Baldé bu ko sëriñ waxoon na ko jox ma cent millions sa salaire liñ la fay lépp ma jox dangay ngay daan Modou mu def ko si ndax àddunaam ci la nekk dégg nga mm-hmm. Modou Lo Modou Lo bu ma mu daan Mm-hmm. ndax damaa bëgg damaa bëgg yoon depuis yoon yéen ñaar ñëpp Modou Lo ngeen di mu daal. damaa bëgg Pikine damaa bëgg damaa bëgg daan waa Pikine ñëpp nag waa waa Pikine waa Pikine noppi. yow Modou Anta sa problème mooy li nga wax duñ ko dégg ndax sa dafa faible. sa dafa faible da ngay fexe defal sa volume. bëri eh. bi moom waaw. mënta mënta bëgg mënta bëgg Balla Gaye ba pare di ñaanal Modou Lo ndam nañu waxante li fi nekk ngay wax kon li ngay wax gëmoo ci dara. moo daan te yow kii ngay wax quoi man koy xam rek koo ma ku xam rek di jàppale Balla Gaye di ko kontaanee di ko def lépp. waaw loolu daa tax ma bëgg a ama Balla. yow bëgg Balla Gaye parce que mënoo mënoo bëgg. man ni ma bëgg Balla Gaye ma ko sànq mënoo bëgg ginaar ba pare bañ ay nenam mooy bu mu ne bu nen dama koy sànni. yéen na fi yàqu. xam nga ko. xam nga yéen nee na fi yàqu nen yi nëb bu xeeñ ko lu nga am nen yàqu. waaye li ma la wax dëgg la ah. yow Koffara yow Koffara yow Koffara bu bàyyi kër nday ba kër baayam dem di contacter Balla Gaye di ko jàppale yow Ama Baldé du bëre ak Modou Lo Lo laa faral ah yow kon nag ku bëgg Balla Gaye daal moom laa war a bëgg man ku bëgg Balla a bëgg Ama ku ma yow ba dëgg de yow kii waxu waxu kii waxu kii waxu xayaw xanaa yow xanaa si dëkk naar yi nga ne waaye yow Modou Lo laa wax yal na daan. yal na daan Ama Baldé. wala dañuy waxtaan dañuy waxtaan man ak yow dañuy waxtaan man ak yow yow Balla Balla Gaye Balla Gaye ba mu daanee Modou Lo yow kontaan nga wala kontaanoo. lii kontaan man Balla Gaye laajal bés mi dama ne ko Balla Gaye buy bëre bu desee un mois dootuma mën a lekk saa yi ma xalaat làmb ji damay suur. li ngay wax li ngay wax dëgg si yow li ngay wax dëgg si yow barki sëriñ Tuubaa li nga wax gëmoo ko sax gëmoo ko. baal waat baal waat baal waat na. pourrait Balla Gaye di bëre di bëre moom loolu naa ko Modou Lo daal. yow kon Balla eh, kon yow sax eh, kon guy gi bu doon bëre ak Ama Baldé koy faral. kat guy gi ak Ama Baldé bu faral. ak ah, Ama Baldé bu ñu contact. Balla guy Balla Gaye Ama Baldé ak guy gi position parce que lu leen wutale Modou Lo laay Modou Lo laay bëre laay faral. man man eh, man wuy ma man dama am cardiaque te saa kees ma koy supporté sama cardiaque man damaa rey. ba lu tax bëgguma baal. yow Mouhamed bu doon bëri Modou faral Mouhamed doon di waxu man li ngay wax waxuma ko man li ngay wax foofu dafa sore Mouhamed dafa sore. waaw Sa Thiès ak Mouhamed Ronaldo wax bu ñu faral. Sa Thiès ak Ama Baldé bu ñu doon bëre kan lay faral xam nga duñ bëre laaj na kan lay faral. koy faral Sa Thiès lay faral. yow loolu si loolu yow la loolu yow la man loolu yow la concerné man loolu concerné wu ma da ngay wax waaye yow yow yow yow ku bëgg Balla da ngay bëgg Sa Thiès mooy yow kii doo kii kii doo kii yooyu am na ñu gëm yàlla te gëmuñu yonent bi. nit nit mënta gëm yàlla te du ko ku gëm yàlla te gëmoo yonent bi doo jullit. waaye am na. nii la yow yow yow ki di yow Modou yow bu yow faral Ama Baldé ndax dangay daanu dimanche. waral te incha allah rabbi si neexee yàlla dina ko yaa ñum contre Boy Niang yaa ñum fii nga naan bu Boy Niang daalee Balla Gaye ma sama jabar laay tayle yow lépp yaa ñu umoon yaa ñu um umoon yaa waxoon ne moo kii sama jabar laay teg si combat mag Balla yaa ñu umoon man sa am ma jabar lay teg jabar man sa am ma jabar non non kon keneen kele ki nekk si kii bi xaw ma état bi xaw ma moo moo newoon day tëddee ci état sa leel bu sore bi xam nga ne yow mi yow yaa ñu parce que mënoo bëgg Balla Gaye ba pare xanaa mënoo bëgg Balla Gaye ba pare nga ni Modou Lo Sa Thiès bu ñu dem bëri man xam nga lu ma bëggee Modou Lo man Modou Lo man Modou Lo Modou Lo dafa bëgg espoir Modou Lo yow ba ba baal waaye dimbalam waaye loolu forme la yow xanaa doo entraîné yow yow barke Serigne Touba xam nga yow yow xam nga ni bu doon may Balla Gaye damay dugg ci live bi ni la yow génnee sama supporter yow bu ma supporter barke Serigne Touba Mbacké. barke yonent bu ma amoon Serigne xam nga lu may lu may lu koy wax ba làmb sax laay bàyyi man ndax Balla Gaye man Balla Gaye ba ko Boy Niang daane Balla Gaye Boy Niang waru ko na daan. la ilaha illallah kon yow kon daan moo tax yow nga ni yow yow kon yow mosoo mooy man Balla dama ne la maman bii Balla Gaye ni ma ko maloon mënatuma ko ndax Balla Gaye man su ma suy bu waaj a damay jeex te taluma loolu. yow yow ka instant instant yi kay waxuma la yow yow yow si boppam yow maanaam yow bës bës taxawal bës taxawal dagg laaj bës bul laaj damay wax ak ñoom man boo daggee laaj bi boo ma dugalee ci laaj bi du ma jël du ma. yow yow yow yow laa wax yow yow parce que. mënoon yow mënoon yow yow mënoon wax sax taxaw suñ mbër na dem contact ba nga ne suñ mbër mi na dem contact na dem ci géej gi rey bopp laa xam yow bëggoo Balla Gaye parce que mënoo bëgg Balla Gaye nga la question la saa ci sa Modou Lo bu ñu di ma nga di waaw léegi kon lan moo nga ni sa Balla Gaye ne dox leen ngay saa ci waaw yow dama ne à part Balla Gaye à part Balla Gaye yow léegi yow maanaam yow maanaam yow da ngay maanaam yow da ngay théâtre wala théâtre woo dama ñu la man Balla Gaye Moussa Cissé ak Modou Lo bu ñu doon bëre kan ngay faral. Modou Lo laay faral. yow sa bëgg nga nekk nii yow de. mooy yow yow yow yow yow yow yow yow yow yow yow da ngay doore yow wala lan la. non yow yow yow bëggoo yow yow bëggoo Balla de. ku bëgg Balla de da ngay bëgg Sa Thiès non yow bëggoo ba Gaye barke yàlla yow bëggoo Balla Gaye. barke alxuraanu ka Balla Gaye rek laa bëgg. sa son bi daa wàcc ah. yaa ngi ni waa kër ñoom waa Pokola bëggul Balla man maa ngi man man maa ngi nii Modou Lo bu doon bëree yaaw jaal sax damay damay faral yaaw jaal mais tey Modou Lo ba mu bëree pare libaas moom laaj ko ma ko kilo. waaw waaw ndax lan ndax lan ndax lan. waaw ndax lan ndax lan ndax lan bu Modou Lo di bëri ba yaawu daal da nga koy faral ndax lan. lan. waaw léegi. yow ba ba suñu dégg la di lay dégg dafa kii. waaw léegi mani yéen may dégg leer na bu baax. aussi léegi tane non. man daal xam lu may ñaan man li may tëjee li may tëjee ba pare nga dindi ma bër. maa ngi ñaan si barke si barke yàlla Modou Lo yal na daan Ama si barke yàlla bu baax Balla na dem entraîné ji contact boobam koŋ loolu laa koy ñaanal digal ko jàmm xaw yéen ñëpp nekk na si jàmm ba ba ñun mais ñu ñëwaat ci grand def maa bu baax a baax xam mais ci coow yi nga fi jot a dégg tey par rapport ak question bi ma njëkk a Euh, mooy Modou Lo ak Ama Baldé tey li mu bëri tey ak ki nga xam mooy Gàkku dëgg est-ce que séntu nañ combat bu mel noonu diggante Modou Lo ak Ama Baldé nag li mu bëri itam ak Jackson est-ce que séntu nañ fa combat bu mel noonu diggante Modou Lo ak Ama mais avant tout d'abord rek il faut pour man affaire day écho nag je crois. day écho nag. ah Modou Anta tëjal sa micro bi ñu xool. waaw ah, loolu tane nag c'est que Medou Anta foog naa moo doon écho soo tëjee bi rek day jàll mhm, mhm. day tëj bon man pour man Modou Lo ak Ama Baldé yëpp tey seen boy de leen sas avant tout d'abord xam nga parce que Euh, bu nekkee côté Ama Balde booy poko pokola tey ni mu génnee xam nga am ndam xam nga sas la ci Ama Balde parce que ñoom ñaar yëpp mën naa ne li genre kii la nan la tuddati seeni poulain direct booy yu leen gën a jege ñoo doon bëre tey xam nga donc nag ñoom ñaar yëpp ñu am ndam donc seen grand yi léegi ñoo ci des ñoom ñoo war a wane seen bop xam nga même man peut-être fi may taxawee tuuti mooy ci pokola Pokola gaa koy dégg naa façon combat gis naa sax ku naan Pokola doomu dàngu affaire yu demee noonu mais dama xalaat ne que Pokola bi gars seetaan nañ ko bu baax Pokola mbër piir la mën na bëre am na doole am na fit am na ginnaaw mais mbër boo xam ne zéro garde la Pokola deux derniers combats mi yëpp c'est pareil day ñoo jox la kanam bi nee la dóoral nu mu la neexee naa la naa la jàpp rek te bés bu dajee mbër bu tey sax waa day écho kay gisoo moo tax li may wax nii may réfléchir may kii en même temps parce que day def retour quoi Modou Anta tëj nga sa micro bi ah voilà ça va ça va je crois que ça va mieux donc pour man. Pokola na gën a tëjuwaat gën a liggéeyaat xeex bi c'est très important parce que am na lépp man je vois que loolu noonu moo ko manqué gravement te tey dafa feeñ man dama jàpp ne que sa gàkku moo jaay combat am gàkku tey combat am daf ko am na sànq ku dugg ci live bi di ko wax mais gas gàkku tey bu dëggaloon tuuti ci xeexam bi nii tey il aurait pu mettre Pokola kaw facilement même xam nga euh, man nag lu tax ma dugg ci live bi nii c'est surtout combat wu dimanche bi parce que c'est très important ñu waxtaan si c'est très important ñu wax ci bu baax a baax a baax parce que man je crois que combat bi bu ñu amul chance dëgg dëgg dëgg ci combat bi lañuy ñuy jaare ak làmb bu ñu amul chance à partir de samedi làmb dina géej a amaat Sénégal te gis naa sànq gaayen bu dugg doon ci wax te loolu mu doon wax gis naa mu ci insiste di si insister waat e c' est quelqu'un koo xam ne euh, il faut grave beaucoup le prendre au sérieux parce que combat dimanche bi que ce soit Ama Baldé daan Modou Lô daan qu'importe c'est à dire c' un combat boo xam ne c' est à nos risque et nos périls première erreur bi dafa ñëw si Luc Nicolas gis nga combat bu toll nii boo koy def il faut que tu sois transparent dans l'organisation il faut qu'il y ait bonne communication yow tey fu mu toll ni yow bës live yi ngeen di def yéen ak ñoom Fadam et cetera gars yëpp nekk fii di jaay combat bi instant yi ñoom ñi tey waa lit Nicolas nko waroon nañ def benn communication bu dëgër ci combat bi semaine bii di ñëw yëpp expliquer tey seen billetterie comme nu ko gars yi waxee sànq combat bi xëy na ñoom li ñuy bañ mooy teel a génnee billet yi gars yi business ci gis nga combat bi jar na nga bàyyi nit ñi lu ñuy business ñu am ko ci ku nekk nga dàq ci sa wërsëg Luc Nicolas ku këpp ci cadre bi kenn mënul wax ba il va s'en sortir cent pour cent que mu commencé jaay bay yi tey wala mu jaay